am mbégte bu rëy teew fii ci siège u taxaw Sénégal ñëw seet suñu mag suñu xarit suñu wëllëree le maire Khalifa am le député maire Khalifa Ababacar Sall ak ñëpp ñu mu àndal euh, ci wàllu politique ñëw ci cadre doxu nemmeeku doxu sargal doxu gërëmande ci lii nga xam ne doonoon na taxawaayu Xalifa Ababacar ak ñi mu àndal ñépp ci li xew fan yi ci réew mi mooy épreuve bi nga xam ne dund nañ ko dama jeex jàpp ma léegi ni sax ni jeexagul dama fekk ci àdduna boo nekkee ci diggante ay nit bàyyi seen yitte seen yitte Euh, bàyyi seeni activité daal di ñëw taxaw sa wet boo dee gor bis boo féexee tuuti war ngaa dellu ci ñooñu ñëpp ne leen jaajëf rawati nag bu dee ñooñu démb balaa tey di ñëw danga nga koon ak ñoom ay relation yoo xam ne relation yu rafet la relation euh, nawlante la relation collaboration la ak am ay mbébét wala ay yéene yu ngeen bokk loolu moo tax suñu diggante ak ñi ñu seet si tey jii kon monsieur le maire monsieur le député maire ñu ngi leen gërëm di leen gërëm ci suñu tur turu parti bi ñu bokk turu mouvement yi ñu àndal yépp waaye ñu ngi leen gërëm ci turu tout peuple Sénégal yépp ndax li am dafa interpellé woon tout le peuple sénégalais te boo seetee ñi génn ne déet ku beew ba foog say militant dong la ndax nga sa kon ci turu ñooñu ñëpp ñu ngi leen di gërëm di sant taxawaay bi nag dafa am solo ndax euh, laata dara di am moom monsieur le maire defe naa ci suñu avant dernière rencontre xam ni waajib mi ngi ci sa tànk te dawal oto sax waratoo ko defati ndax dootul sañ yëkkati dara naan da koy teg ci opposant kenn ku ne ci ñoom limu wax am na ndax pexe bi mujj naa antu kon côté boobu Barthélemy waxoon na li mu wax am na waaye sottiwul ni mu ko buggee woon kon li monsieur le wax am na it loolu day wone rek ni euh, relation yi ñu am relation yu xóot la te ñu ngi doon liggéey ci lu bëree bëree bari laata lii di am moo tax bett ñu bu mu amee it moom monsieur ak ñi mu àndal ñëpp jóg ne lii duñ ko seetaan te dinañ ci taxaw noonu mu amee ci man nag te nit ñi massawu ma noonu laay dellu massawu ko moom parce que Sénégal yëpp gis na ni jaay nañ ko doole ci jamono nangu ay droit tere ko mu mën a nekk candidat te boobu jamono mu bokkoon ci ñi gën a yelloo candidat ñi senegal yi gënoon a teg bët am yaakaar ci ñoom waaye yemuñ ci loolu dem na ba li Sénégalais yi yëkkati ci seen kóolute moo xam mandat de maire nga xam ne waa Dakar ñoo toog ba mu neex leen ñu ne moo moom moo ñu doy te boobu jamono ñeneen a ngi taxawoon di laaj mairie bi te yoroon ay moyens yu mu yorul ndax ñoo bokkoon ci nguur ñu ne yelleefu sénégalais yooyu nga xam ne ñoom ñu seet ku leen neex yelleefu Dakar waaye ñu seet ku leen neex ñu jox ko moo am Macky Sall am na sax sañ-sañ nangu naa ko ci Khalifa Sall ñu ne deeti ci mu dem élection législative ñu jiital ko ci coalition mu dugal lu mat fukk lu ci tegu ay nu mu wala wala lu jege fukk ay député ci assemblée ñu ne ko kóolute googu sénégalais am ci yow ba jox la mandat député man mennu Macky Sall am naa sañ-sañu nangu ko loolu guléet la ci senegal jaay doole gu mel noonu kon ñu koy masaw di wax nag ni ci jamono jooju lañ ca mënoon ci xeex def nañ ko lii xew ci mbirum Ousmane Sonko en réalité dafa dajale ay frustration yu bëree bëree bëri bëri li xew ci Karim bokk na ci li xew ci Khalifa bokk na ci li xew ci Guy Marius Sagna bokk na ci li xew ci Assane Diouf bokk na ci yooyu yëpp ba ci moom Barthélemy bi nga xam ne ba tey ji ñu ngi koy jaabanteloo tribunal demal ñëwal yooyu yëpp dafa daje ba Sénégal yi nag lii c'est la goutte d'eau de trop moo tax ci ni ñuy aborder mbir dégg nañu Sénégalais yi dégg nañu seen message moo tax ñu ne loolu lépp nag dañ ciy dellu si waat moo tax ci poñ yi nga xam ne bind nañ ko teg ko muy ay exigence du ay doléance bi ay exigence yu mu teg la ne moom dina dina ko def wala ñu jàmmarloog moom point yooyu dañu dellu ci gannaaw loolu yëpp donte am na lu mu jot a yàq ndax ku waroon nekk candidat ñu xañ na ko loolu dara mënatu koo remplacer waaye dañu ne bis bi ci tey dootuñu ko nangul loolu du moom mooy toog seet kan moo war a am liberté wala kan moo ko ñàkk kan moo war a nekk candidat wala du ko nekk kan la ñuy jox carte électeur wala kan lañ ko dul jox loolu constitution may ko kenn ak ko munti doon rawatina nag président de la république nga xam ne moom moo ñu war a njëkk a tënku ci constitution boobu kon looloo taxoon ci cadre tournée yi ñuy def fépp dañ fa dem mais fii dafa am importance particulière laata lii am wax naa ni am na jéego yoo xam ne ñu ngi ci doon liggéey te Sénégal yëpp xam nañ ko mooy taxawal kuréel gu yaatu front bu yaatu boo xam ne day dajale ñi nekk ci opposition bi yëpp front boobu lan mooy euh, jubluwaayam mooy faire face au pouvoir dictatorial de Macky loolu moom mii moo ko initié woon te defe naa man na ci njëkk a waxtaan ci acteur politique doog cee dem waxtaan ak ñeneen ak ñeneen ba ñëpp àddu woon joxe seen kàddu ni bëgg nañ cee bokk loolu nag tey la gën a actuel parce que qui le qui plus peut le moins bu dee démb nga xam ne situation présenté wu loon ni mu présenté la ñu xalaat loolu waxuma laa tey jii nga xam ne askan wi yëpp wan nañ ñu ni doyal nañu ci li fi nekk bëggatuñ ci dara askan wi yëpp wane wan nañ ñu changement lañu bëgg askan wi wane nañu ñun ñii lañu la ñu àndal ñu féete ci kujje gi parce que dëgg la àndal te doyal nañu ci jaay doole gi ci dëkk ci dëkk bi